الذين حافظوا على الصيام شهر به يخلق باب للإيام فات الذين حافظوا على géej la boo xam ne des ko jeexal ndax moom li mu am lépp rek ak mbootam lépp mooy alxuraan waxoon na ne itam weeru koor mooy sama secret saxur dama daane sërri weer koor woowu ci la yàlla su borom wàcce alquran waaye wàcce ko ci kaw yonent yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom nag sëriñ bu mag bi dafa waxoon ne alquran mooy ab doctoram alquran mooy ab doctoram yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa qablu kunta tabibi wooy bëri ko waxaat ne seydina muhammad mooy ab doctoram muhammadin طبيب الحكيم aska salaami rabbina alkarimi ak muhammadin tabibin alxumaami kon jël na alquran def ko muy ab doctoram waaye sayidna muhammad mi nga xam ne ci moom lañu wàcc alquran moom itam mooy ab doctoram walbit ko waat na waxaat feneen ne weeru koor mooy ab doctoram ci xasiid ak gi nga xam ne mooy xasiida gu siiw gi di yaa xeer day fi ne ataabil bismillah mardin ci tàmbali ba ma ngi cay wax ne sahar ramadan xalili wa habibi wa tabibi kon ñetti docteur yooyu la am waaye li ci yéeme te am solo mooy ñu xam ne alxuraan dafa wàcce jóge ci yàlla sunu borom wàcc ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wàcc ci jamonoy weeru koor kon muy téere yàlla sunu borom bi ak yonent bi ak weeru koor ñett yooyu nag benn bu ci nekk daa am wàccuwaay ak taxawaay boo xam ne sëriñ bi am na ko ci liggéeyal na alxuraan liggéey bu kawe liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye jël weeru koor def ko noo xam ne ci dundal ko ak taxawu ko ba làq ci sax ay ngëneel yu bari bari na ay jagle ak ay maqaam yoo xam ne ci biir weeru koor la ko làq ci biir weeru koor la amee loolu dañ ci tudd rek weddul maaxuus wi nga xam ne moom la ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàqatatan laa manaaman ci biir weeru koor la woon muy ba nekk gànnaar ca sarsaara yonente bi salallahu sallam jox ko werdu bi weddul maaxuus loolu ci biir weeru koor la woon muy rek kon loo xam ne ab neexal la dugg ci biir mboolem yeneen jagle yu xóot yoo xam ne am na yu mu tudd ci biir xasida yi ne ci biir weeru koor la ko am am na sax ay ay ay ay maqaam yu jafe yoo xam ne bëggoon na ca àgg waaye ci biir weeru koor dañ ko ko jox te loolu dellu ci taxawaayam boo xam ne daanu ci weeru koor nu mu ko daan dundale nu mu ci daan tabee ci biir weeru koor wi di joxe daana àgg sax di neexal gone yi nga xam ne euh, dañuy jéem a woor donte woor day def ci ñoom ñu du ko jéem kenn ku nekk rek bis ya nga woor nu mu toll boo jéemu neexal la loolu lépp ngir fonk weer wi te daana def weer wi xasee dugg rek nit ñi dañuy profité kenn ku nekk di ko laaj ndax loo ko laaj rek mu jox la ko du la delloo benn yoon kon moom noonu la daan taxawoo weer bi kon dañoo war a roy ci moom képp koo xam ne rek aju na ci moom war naa roy ci moom ci wàllu kooku أجر الذي ما عنده لا ينفد أجر كبير ما تراه النفد نفسي بشرف الدارين